عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق تفضل انت هواي تجد جبل تفضل انت هواي تجد جبل الله اكبر الله اكبر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 والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إن بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها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 السلام عليكم السلام أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أنه ربي ورب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رفيع الدرجات ذو العرش وإن من شيء إلا يسبح بحمده وما يعقلها إلا العالمون وفوق كل ذي علم عليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مماثل ولا معاند شهادة تكسب قائلها على مراتب الإيمان وتنجيه من أهوال النيران وتسكنه في أعلى فرادس الجنان والصلاة والسلام على مجمع شأنه وسر حكمته ونور خلقه وعين عينه التالي المثاني بالصفات الحقية والخلقية سيد الكون إنسه وجنه عين الرحمة الربانية البشير النذير خادم الحضرة القدسية الموحد له بمطلق التقرير سيدنا محمد الفاتح الخاتم من النبوة والولاية والتجليات في غيب المدبر العالم والرضوان من الله العزيز الغفار عن ناصره بالحق في عالم الغيب والشهادة صديقه عاملين بشريعته وتكاليفه المجاهدين بالله أحسن مجاهده الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا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 bés yi bés yi tudd yàlla la na ko alquran waxee na ngeen tudd yàlla ci bés yi lim bés yi nga xam ne bés yu xam la bés yi tudd yàlla la bés yi sàbbal la subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar baat yi nga xam ne mooy baqiyatu saalihat nga xam ne yàlla nee na moo gën àddina baat yooyu nga xam ne subhanallahi malaaka yi ñoo ko njëkk a wax alhamdulillahi aadama moo ko njëkk a wax la ilaha illa allah nooxan moo ko njëkk a wax allahu akbar ibrahim moo ko njëkk a wax ibrahim sunna soosu moo des ba tey jii mu nga xam ne moom lañ dajee tey jii ngir dekkalaat ko yal nañu yàlla nangul bokk na ci li gën a feddaliku ci sarax muy tabaski ak gore am goreel jaam ñi ne dana war koo képp koo xam ne bàyyi nga ko te fekk am nga kàttani def ko am nga bàkkaat dana war ci boo ko nisëree tim nisër ne danaa tëraski wala nga ràññee ko jënd benn xar ne xar mii sama tëraski la boobu dafa war mu nekk si tëraski boo ko warloo ci sa làmmiñ mbaa nga warlu ko ci sa yéene ba ngay jënd ne lii tëraski la boobu dafa mujj nekk tëraski kan lañ digal tëraski nag mooy gor boo xam ne am na kàttan maanaam man na te nekkul aji xaj bu nekk minan ndax ajkat yi tey tabaski warul leen ajkat yi li leen war ñaari xeeti ajkat la yu war mooy ñi nga xam ne dañuy def aj bu ñuy wax xiraan mooy éene boole aj ak umra wala koo xam ne dafay def aj bu ñuy wax tamattu ñooñu hëj daf leen a war waaye ku def aj ak ifraat boo baax a di waru la waaye bu la neexee nga coobareewu ko mu ne ku ko attan na ku ko man mooy koo xam ne du soxla njëg gi ci at mi yëpp loolu moom bu ñu ko waxoon daanaka kenn du tabaski fi maalikiya mu ne duñ ko lebal maanaam doo leb waaye am na ne déedéet bu fekkee ne boo lebee mën a tabaski te li nga leb war nga koo fay kon war na la nga leb pour tabaski kon nañu waxee ne ku am ñaari mbubu te benn bi doy la te nga mën a jaay benn bi tabaskee ko kon ku am fanweeri mbubu waxi nopp bu boobaa war nga mën a jaay benn bi pour tabaskee charte tabaski nag mooy na nekk ci juri kër bi ci gën mooy xar topp bëy topp nag topp gëlem bu duuf ci moo gën bu duufut bu am ay béjjën it moo gën bu amul ci gis nga tabaski foofu la uuteeg xaj yu bale ñay ray ca màkka xaj yu ca màkka gëlëm moo gën nag topp xar topp bay door a topp ndax foofa lañ ca taamu mooy yàpp wu bëri ndax miskin yi nga xam ne ñooy miskin yi ah, xaram bi waaye tabaski liñ ci taamu mooy yàpp wu neex moo tax xar moo gën bay tegu nag tegu gëlëm door a su sunnaay tabaski boo tabaskee nga lekk ci boo ne wàjji nga wàjji boo mënee saraxe nga saraxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am at boo xam ne nit ñi dañoo nekk ci jafe-jafe mu ne ngeen lekk na ngeen saraxe maanaam bu nit ñi soxlaa waroo lekk denc waaye da ngay lekk séddoog sa mbokki jullit ñi ñi la yàlla xéewal ci ay xéewalam am at boo xam ne daf ne na ngeen lekk na ngeen denc waxtu boo xamee ne nit ñi toll wuñ ci xiif nga war a jël njàpp wi di ko sànni looloo tax nga gis man ñi daan euh, def wàjj yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci tabaski ba tey jii lu gën a lu ndaw ci lu doy ci tabaski mooy xar boo xam ne jazaaw la mooy boo xam ne am na benn xat ñu ne bu am fukki weer ñu ne bu am juróom ñetti weer ñu ne bu am juróom benn weer yooyu yëpp wax nañ ne doy na pour nga mën koo tabaski waaye li gën a siiw mooy xar moo xam xat boobu moo gën a siiw bu doy ci yeneen gàtt mooy seliw seliw buñ ñu ko waxee ci bëy mooy bëy boo xam ne doomi ñaari xat la wala am na benn xat ba dugg ci atam ñaareel buñ ñu ko waxee ci nag mooy nag boo xam ne am na ñaari xat dugg ci atam ñetteel buñ ko waxee ci gëlëm mooy gëlëm goo xam ne am na juróom benn xat loolu moom lañ e, taamu aaye nañ gàtt boo xam ne nii dafa làgge wala bu patt wala bu feebar walla bu loof lompañ wala boo xam ne béjjën bi dafa damm di nàcci wala boo xam ne dañoo dagg nopp ba la ci ëpp wala sulus ba wala ñi dagg geen ba la ci ëpp wala boo xam ne béjjën bi dafa summeeku aaye nañ boo xam ne dañoo bënn eh, nopp bi bën bën bu bu yaatu boo xam ne mën naa ëpp li def ci nopp bi wala boo xam ne dañ ko njoof ca kanam wala njoof ca gannaaw njoof goo xam ne tim mën naa am tàggale na eh, lañ njoof wala boo xam ne tim aaye nañ boo xam ne dafa nañ boo xam ne dañoo dagg noppam yi aaye bu euh, bu mu nopp bi wala boo xam ne dañ koo dagg la ci ëpp loolu yëpp dañ koo xen ci dàq ak mat gën a mat waaye ba tey doy na waxtu tabaski nag ci bés bu njëkk bi ci bési nga xam ne mu ngi commencé tey ji mooy <coughs> gannaaw buñ jullee iid gi ba ilimaan sa ilimaan yow rey bu boobaa mooy waxtu rey tabaski moo tax mu ne dana xel ilimaan génnee tabaskeem ci julleekaay ba waaye bu deful loolu euh, bu deful loolu ba nga xam ne kenn xamul kañ la rey ku rey njëkk ko am nañu ne ndax baax na wala baaxul uti nañ ci mu jëg waxtu rey tabaski dalee ko ci bés bi ba bési ñetteel bi ba jant bi di soyee ci bési ñetteel bi fii ba ñette ñetti fan ñetteeli ba jant bi di soyee waxtu bu nekk bés yi yëpp waxtu yi yëpp dagan na pour nit ray ci tërëskeem ku mën a rayal sa bopp yaa koy méngoo donte jigéen la bu fekkee da nga uutal keneen mu rayal la te fekk man nga ko doy na waaye defoo li gën bu fekkee da nga tële ba uutal nit pour mu rayal la nga teew reene ni kii comme jamono yi nga xam ne fi mu ne ñu bari ñu ngi ray lu tabaski te nekkuñ ci dëkk yooyu boobaa dañuy yéene rek ray yi nga xam ne moom lañ taamu nag gannaaw bismillahi jublu xibla mooy dagg put gi ak ñaari lawdaay yi danga def paata bi ci rayukaay bi di ko rombale ak romb ba mu dagg per boobu noonu mel ni xoor ci ci baat bi <coughs> loolu mooy ray ki nga xam ne dafay uutu ki muy rayal du ci jël dara maanaam loolu gënut daganut tam nga jaay dara ci sa tabaski waaye kuñ may nag nga jaay ko kooku noonu génn àtte bële walla <coughs> nga ci luye euh, walla weccoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ñaari kuy yu weex yu rafet yoo xam ne yu amee béjjën lañ yoo xam ne dafay dox ci ñuul maanaam tànk yi dafa ñuul bu gooree fi muy dafa ñuul bu muy doxee dafa ñuul moo leen rey sallallahu alayhi wa ci loxoom bu tell boobu wax ne bismillahi allahu akbar ñaari xar bii mu rey ko pour boppam bii mu ne e, bii ngir man bii mu ne ngir képp koo xam ne nii rek tabaski woo ci sama xeet bi uti na la ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne na ngeen màggal seeni tabaski maanaam seeni xari tabaski ndax dana nekk seen waruwaay ci e, <coughs> ci siraat solo nañ jëlee ci moom tim ne benn jaam du jubloo tabaskeem xibla maanaam rey ko ngir yàlla lu may deret ji nefere ji karaw gi lépp dafay mujj nekk jëf yu baax yoo xam ne dañ koy teewal ci màndaxaay jëfam mu diisale ko màndaxaay jëfam yowmal qiyaamati jëlee nañ ci ibnu abbas ba tey mu aj yoo xam ne àggale na ko ci yonent bi ne amut sarax su gën gannaaw jokk mbokk bu gën tuur deret mu ne na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wax ne yàlla dafay seedu bési iid dafay def tajalli feeñu feeñu waayam ngir way teeru ko boobaa mu goreel ay yu bëri ci bés boobu looloo tax xam ngeen ne yàlla amul barab waaye bési iid muy tabaski muy eh, tamxarit yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ne na ngeen génn ci julleekaay yi ngir teewlu ngir gàttandu yërmaande yàlla gi nga xam ne yërmaande googu yàlla daf koo jagleel ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci julleekaay yi bi bi moo tax daf daan génne ba ci jigéen ñi nga xam ne nii dañoo am mbërëg wala ñi am desin nga xam ne julliwuñ daf leen daan génnee ci julleekaay yi waaye dañ daan beru barab bi way julli ñi loolu nag yàlla moo jël yermandeeg yermandeem ngi ci bés boobu jagleel ko ñi nga xam ne ñu génn di ko gaarlu waaye yàlla amul barab loolu tax ñi sopp julleekaay yi waxtu nekk mu nekk foo xam ne nii du nekk fu ñu tabax mu nekk fu ubbeeku ba nga xamee ne fi ñuy ñu amee tabax sax génn nga xam ne ab la boo xam ne dafa ubbeeku ngir gaar lu googu te xam nañ ne yàlla amut baram waaye moo jël yërmandeem eh, jagleel ko ñooñu nga xam ne ñooy génn ci bés boobu yàlla dana ci goreel mu ne ay tooñkat yàlla yu bari te malaaka yi ñu ngi teew ngir fekkee màggaay njéggali yàlla gi nga xam ne moom lay jéggal jaam yi ci bés bi yàlla yàlla jéggal ñu ñëpp suñuy bàkkaat yàlla yàlla nangu ñu ñëpp suñuy jëf yu baax yàlla yàlla nangu ñu suñu julli nangul ñu suñuy saraxe nangul ñu suñu dundale yàlla yàlla xiir ci lim bëgg ak ci lim gërëm mu ne saraxe ci ñaari iid moo gën saraxe ci beneen bés bu dul ñaari iid yooyu ci juróom-ñaar fukki daraja te yàlla dana euh, fulalal ku ko neex ba lu amut dayo dana euh, dana dana ful ba ci juróom-ñaar fukk dana ful ba juróom-ñaar téeméer dana ful sax ba loo xam ne nii amul euh, benn dayo dana sopp nañ di wax allahu akbar dalee ci tusubaari bésab tey bi ba ci subaak bésab ñeenteel gi waxtu wu ñu sëlmalee julli farata rek ñuy wax allahu akbar loolu du ne euh, noddukat bi rek moo ko moom jullikat bu nekk rek boo jullee farata boo sëlmalee farata war ngaa wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar dog ci bés bi ngir nga xam ne dañoo solo ne ku oor maanaam bés bi ba ba ngay jugee ci julleekaay rendi sa xar dogee ci yàpp boobu dafay tolloog oori juróom benn junne ji at moo tax euh, bëgg nañ li euh, nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buy iidul fitre muy korite balaa génn daf daan lekk ay tàndarma te daf koy lekk mu nekk lu tuul benn ñett juróom juróom ñaar waaye tabaski bu daan njëkk muy génn di julli ji du lekk dara buy julli ji ba ñëw lay doora lekk sopp nañ sangu ci bés bi sopp nañ gëttu sopp nañ taarlu maanaam euh, sol ay mbubu yu yu yu bees wala mbubu yu rafet <coughs> di ci xàq ki nga xam ne nii julli jugut la di ci xàq ki nga xam ne ni laabut euh, euh, pour war a julli dox jëm ci julleekaay ba lu sopp la waaye <coughs> wartim terewuñ ko ndax bés bi bési taaru la tawar ci taaru la bokk ak di kàbbar di wax allahu akbar ba ba ilimaan bi di ñëwee walla ba ba ñuy taxawalee julli ku ñëwee ci yoon bëgg nañ nga delloo ci beneen yoon loolu ñu ne ndax ngir feeñal doole lislaam ci yoon wi feeñal doole lislaam ci yoon wële wala seedeloo malaaka yi ci yoon wi malaaka yi ci yoon wële walla sarax miskin yi nga xam ne mu ngi ci yoon wi ak miskin yi nga xam ne ñu ngi ci yoon wële mooy na ngeen ragal yàlla yàlla ko wax yàlla mi nga xam ne bu ngeen di laaj ci moom ngeen di laajee na ngeen sàmm mbokk gi yàlla ngi leen di yëddu yàlla ngi gis li ngeen nekk gis nga sàmm mbokk fa ko yàlla fa yaa ibadallahi istami'u wa ansitu ra'aakum allahu wal ta'lamu anna xaaliqakum ma xalaqakum abada innama xalaqa aljinna wal insa lil ibadati fajaddidu al imana watlubu ziyadatahu bil ihsan في كل زمان ومكان وإن من أوكده متابعة نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال إذ هو عين التقوى الذي ينال الله تعالى قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ومن أهم ذلك الاستنان بسنته في عيد الأضحية الذي هو أعظم العيدين المشروع في زمن نبينا إبراهيم الخليل حيث أمر بذبح ولده إسماعيل وفداه بالكبش الجليل فصارت سنة باقية إلى يومنا هذا وهي أفضل من الصدقة والعتق وقيل بالوجوب فمن تركها وهو قادر أثم وتجب بالنذر وبالتعيين وتتعين إذا التزمها بلسانه بالنية عند الشراء على المعروف والمأمور بها حر نصة يوم غير حاج بمنى والمستطيع من لا يحتاج لثمنها في العام عند مالك الإمام ولا يتسلف لها على خلاف في ذلك ومن عنده ثوبان أحدهما يكفيه باع لها الثاني وشرطها أن يكون من النعم والأفضل الضأن ثم المعز ثم البقر ثم الإبل والسمين والبحل والأقرن أفضل من غيره وأقل ما يجزئ الجزاء من الضأن والسني من غيره وهو من الضأن ابن سنة وقيل ابن عشرة أشهر وقيل ابن ثمانية وقيل ابن ستة والأول هو المشهور والثاني من الماعز ابن سنتين وقيل ما له سنة ودخل بالثانية ومن البقر ما له سنتان ودخل بالثالثة ومن الإبل ما له ست ونهي عن العرجاء والعوراء والمريضة والعجفاء والمكسورة القرن إذا كان يدمي يدمي والبشمة والمقطوعة الأذن والذنب والذنب والصمعاء والصمعاء ونهي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة محمول على نفي الكمال ووقتها في اليوم الأول من أيامها الثلاثة بعد صلاة العيد وذبح الإمام وينبغي أن يبرزها إلى المصلى فإن لم يفعل ففي إجزاء من ذبح قبله قولان وآخر وآخر آخر, آخر وقت الذبح غروب الشمس من من اليوم الثالث ويتولى ذبحها صاحبها وإن كان امرأة وإن استناب وهو قادر إجزاءه وبئس ما صنع فإن عجز استناب ويحضر وينوي والذبح المختار بعد البسملة والاستقبال القبلة قطع العلقوم والودجين ويدع السكين بالمذبح ويمره فيه مرا حتى قطع الخردة وهذا هو الذبح ولا يأخذ النائب شيئا في نظير عمله ولا يجوز بيع شيء منها ولا يؤاجر ولا يبادل وقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ينظران في سواد ويبركان في سواد ويمشيان في سواد ذبحهما بيده الشريفة وقال بسم الله الله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي وقال عليه الصلاة والسلام عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم وعنه أيضا ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة illaa kaana damuha wa farsuha wa suufuha xasanaatin muxdaraatin fi miizaanihi yawma alqiyaama wa an ibni abbaasin marfuucan maa min sadaqatin bacda silati rahimi afdalu min iraaqati dami wa fi lxadiisi yatajallaa mawlaanaa fi yawmi alciidi liyazuurahu almuuminuuna fa yuctiqa uluufan min almujrimiina والملائكة شهود ليشهدوا عظيم عفوه عن العبيد والصدقة في العيدين أفضل من غيرها بسبعين درجة والله يضاعف لمن يشاء ويندب التكبير من ظهر هذا اليوم إلى صبح رابعه دبر كل فريضة ولفظها الله أكبر وتأخير الفطور لما روي أنه يعدل صيام ستة آلاف سنة وغسل وتطيب وتزين walaw fi xaqi man laa yusalli walmashu waljaharu biltakbiri ila an yajiya alimam aw yaquuma lilsalaati wa man jaa min tariqin falyarji min tariqin uxra wattaqu llah alladi tasaaluuna bihi walarxam in allaha kaana alaykum raqiba wadkuru llaha kasiran laallakum tuflixuun wanfiquu fi sabilillah waalamu anna ma indakum yanfat wa ma inda allahi baaq وراعوا الصلاة بالجماعة بطهارتها وفعلوا الخير لعلكم تفلحون اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés bi bésab yàlla yàlla sàmm leen na ngeen xam ne seen borom ki yàlla ki leen bind bind leen ngir nga fontu waaye dafa bind nit ak jinne ngir ñi jaamu ko comme ni nga ko waxee ci alquran bind ma nit ak jinne lu may ngir ñi jaamu ma Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu dafa wax ne bàyyi mu ne yàlla melum ni buur yi buur yi dañoo am ay xaaj ci seen mbooloo xaaj boo xam ne ñoo leen di dajaleel wërsëg xaaj boo xam ne ñoo leen di pareel seeni lekk ak seeni naan ak xaaj boo xam ne nag ñoom la ñuy wéttalikoo buñ toogee ñoom la ñuy toogaale yàlla dàq na ñaari xaaj yu njëkk ci boppam ma uridu minkum rizqin wa ma uridu an yut'imun ma uridu minkum rizqin wa ma uridu an yàlla la wax ne yàlla dafa bind nit ak jinne nit ngir ñu jaamu ko bugut ci ñoom ñi wërsëgal ko bugut ci ñoom ñi leyal ko ndax yàlla mooy borom kàttan gi nga xam ne soxla lekk soxla naan waaye soxla na ci jaam yi waxtu wu nekk ñu taxaw ci kanamam sellalal ko jaamu ñu ki lu mel ni jotaay yu mel nii nga xam ne dekkal sunnat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne na ngeen beesal gëm yàlla nañ wax laa ilaha illallah beesal suñ gëm yàlla na ngeen sàkku dooleeku gëm yàlla waxtu wu nekk ci def lu baax ndax gëm yàlla dafay yokk dafay wàññeeku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na aji naan du naan waxtu wu naan fekk mu ngi gëm yàlla aji sàcc du sàcc waxtu wu sàcc fekk mu ngi gëm yàlla aji njaalo du njaalo waxtu wu muy fekk mu ngi gëm yàlla moo tax jëf yu manqué yi dafay manqué gëm yàlla ni nga xamee ne jëf yu baax yi dafay yokk gëm yàlla moo tax muy santaane ñuy góorgóorlu waxtu wu nekk ci jëf yu baax yi nga xam ne mooy ñuy yokkal suñ gëm yàlla ci mboolem waxtu ak ci mboolem jamono mu ne bokk na nag ci li gën a ci jëf yu baax yooyu mooy topp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci wax ak ay jëf ndax loolu mooy dëgg-dëgg ragal yàlla gi nga xam ne mooy topp ndigal yi mooy bàyyi tere yi te ragal yàlla moom la yàlla wax ne moom mooy maye yàlla ndax daan mi tabaski yeeg daan mi xaj wi ñee rey ca minan ca màkka lépp yàlla nee na ay ay yàppam ak i deretam duñ maye yàlla waaye liy maye yàlla mooy nga def ko fekk mu ngi ànd ak ragal yàlla tabaraka wa nga def ko ngi topp sunnati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne bokk na ci li gën a feddaliku ci jëf jooju mooy ci jëf yu baax yi nga xam ne dana yokk gëm yàlla mooy sunnahoo sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci iidul adha yi nga xam ne moom mooy tabaski te moo gën a màgg ci iid yi xam nañ ne euh, ni ko Baay waxee euh, xeet bu nekk nation bu nekk seeni feet mooy bés yi nga xamee ne ci lañu amee dolleeku ci la amee yëkkatiku feeti lislaam nag waxtu wu nekk mooy waxtu boo xamee ne jullit ñi jeexal nañ jaamu ci jaamu yàlla yi tabaraka wa taala ndax buñ jullee ba semaine bi yépp jeex ñi may ñu feet muy àjjuma moo tax nga gis mu ànd ak xutba buñ kooree ba koor jeex ñi may ñu feet muy korite buñ ajee ba aj jeex gannaaw arafa ak jeex ñu maye feet muy feet gi nga xam ne mooy feeti tabaski mooy feet gi nga xam ne moo gën a màgg ci feet yi nga xam ne bés la boo xam ne yàlla daf say berndeel jaam di leen euh, ganale ca Makka waaye ganale googu yàlla yaatal na ko ba àgg na ci jaam yi fépp fu ñu mën a nekk julit ñi fu ñu mën a nekk rek boo demee tey jii danga fekk ñi rey seeni xar di nekk ci ganale googu nga xam ne moom la yàlla ganale xujjaaj yi nga xam ne ñoo aj néegam yàlla bi tabaraka wa taala kon feeti jullit mooy boo xamee ne rek pare na ci eh, jaamu yàlla yi tabaraka wa moo tax ñu ne xanaa ana feeti azaka ñu ne asaka comme ñëpp duñ koy joxe ndoor ku nekk bés bi ngay joxe sa asaka waxtu wala yàlla dimbalee ba nga am xaq war a génne asaka bés ba nga ko génnee bés boobu mel na ni bési feet la ci yow lan mooy feet yi ñaari baati seede yi ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah feetam mooy nga matal baat yi baat yi lu koy matal mooy nga dëggal ko te jëfee li nga xam ne moom la baat yi laaj muy topp yàlla topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax saalixiin yi ñun yàlla yi nga xam ne waxtu wu nekk ñu ngi def di fuglu maanaa baat yooyu dëggal baat yooyu ak jëfee li nga xam ne moom la baat yooyu laaj ñu jéem a saxoo loolu moo tax ñu seen bés yëpp seen bési àddina ak bési àllaaxira yëpp feet la am na mu ne jaam daal bés boo xamee ne moy ci yàlla di si topp yàlla waxtu wi topp yàlla rek waxtu wi mu ndax mu ngi def li nga xam ne xéewalam ci la nekk waaye it googu yàllaa ko euh, waral ci jamono suñu baay Ibrahima al salaam mi nga xamee ne yàlla daf ko digal mu rey doomam Ismaayil Ibrahima bi nga xamee ne dund na ba am téeméeri at ak ñaar fukk te doom yàlla may ko doom muy Ismaayil demee ba am. fukki at ak ñett moom nga xam ne fa la nit di bëggee doomam yàlla ne ko rey ko mu gént yàlla ne ko ray ko te gént yonentu wax yu la mu ne doomam ji dama suma borom daf ma digal ma rey la doom ji nekk saalixu la ne ko defal li la sa borom digal danga ma fekk ma bokk ci way muñ yi bàyyi mu ne gis nga ray ni mu jafee waaye Ismaayil ba mu waxee ne danga ma fekk ma bokk ci way muñ yi boole na boo boppam ci mbooloo mi moo tax yàlla dimbale na ko mu muñ ba ba ko yàlla di jotee Muusaa nag ba mu àndee xadir xadir ne ko ba ma àndee man dooma laaj dara ba ma leeralal ko dafa ne ko danga ma fekk may muñ boolewu ci boolewu ci keneen moom kenn rek la moo tax doole mbooloo mi mu jur moom muñ moo tax barke ànd ak mbooloo waxtu mu nekk dañ koy fuglu ba ko yàlla waxee ne ko rey ko Ismaayil ne ko baayam defal li la sa borom digal mu nërmal ko jël paaka bi xiiti xiiti rendi rendi rendi ba sonn paaka bi mënu koo rendi moom doom ji mu ne baayam dang koy dëbbu baay ji jël paaka bi dëbbu dëbbu dëbbu ba sonn paaka bi mënta rendi paaka bi ci boppam moo ko waxee ne ko yow yaay xaliil waaye boo ma waxee ma rendi yàlla kii jëlil ne ma bu rendi bu boobaa du ma rendi loolu loo ci déggee mooy paaka du rey feebar du rey patu du rey fetal du rey safara du rey kii rey ci yooyu yëpp mooy yàlla ngi imaamul Ghazali wax ne bu fekkoon ne safara dafay lakkaate buñ kuñ ci dugal mu lakk la ni kon buñ ci dugalee Ibrahim du ko lakk dugal nañ ci saxaaba yi ci saxaaba taabee koo xam ne sax abu muslimil xawaani du saxaaba yi sax dugal nañ ko ci gannaaw yonentu lakkut ko ba Seydina Omar di wër ba gis ko ne maa ngi sant yàlla ba ma yàlla wane koo xam ne ci xeeti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dund naa ba gis ci xeeti Muhammad koo xam ne yàlla may na ko karaama boo xam ne moo doon mucjise Ibrahim paaka bi kon mënta rey lu may yàllaa ko ko bi mënta rey dëggal nga sa eh, sa sa ndigali borom ci la yàlla wàcceem xaaf muy xar mi nga xam ne moom la ko yàlla wàcceel pour mu jotee ko Ismaayil alayhi salaam loolu moo ju nekk di sunnaay tabaski ba suñu bésab tey bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dekkal ko moo tax yonent bi bési tabaski nee na doomam sayyidatuna Fatima Fatima demal nga ray sa tabaski sa sunnaay baay ak sa sunnaay sa baay Ibrahima ndax Ibrahima maamam la te maam dañ koy wax luñ taamu la na ngeen dundale ci yoon yàlla yàllaa koy oote yàlla wax na ne na ngeen dundale ci li nga xam ne moom la leen yàlla dénk yonent bi sallallahu alayhi nee na yàlla nee na dundal ab yow suma jaam dundaleel ma dundale ci yow xam leen ne li nekk fa yéen dafay jeex te fa la nekk fa yàlla du jeex la nekk fa yàlla nag li la koy jotal mooy nga jiital li nga xam ne moom nga am fii tey moo lay jotal li nga xam ne moo nekk ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tey bés ne sahaaba yi ana kan ci yéen la alali keneen gënal alalam ñoom ñëpp ñu ne ko amul kenn ci ñun lu may alalam moo ko gënal alali keneen yonent bi nag ne sa alal mooy li nga lekk bam rees li nga xar li nga sol bam ràpp ak li nga dundale ci yoon yàlla waaye li nga bàyyi sa gannaaw loolu alali keneen la moo tax mu wax ne muy fàttali ne li nekk fi yéen dafay jeex waaye li nekk fa yàlla dafay des la nekk fa yàlla nga xam ne mooy des bu la neexee banque boobu bu la neexee waxtu woo nekk loo am mun nga cee dugal donte felli tàndarma la te mën na laa fegal safara ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne taqu naara walaw bi shiqqi tamratin na ngeen fekk safara donte ci genn wàlli tàndarma la na bàyyi na na sàmm julli yi te di ko sàmm ci mbooloo di ko sàmm ci laab ànd ak sàmm ko ci waxtu na ngeen def lu baax ngeen texe def lu baax moom min jooyal la allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim allahuma salli ala sayidina muhammadin sayidil awalin wal axirin